Fandène am na ay limites loolu ñépp xam nañu ko mais bi ñu fi nekkee ba léegi benn mètre carré jógewul ci commune Fandène dem feneen mais yaakaar naa chef de village yu Kéba route de Morolan yaakaar naa mi ngi fi donc ma ngi koy gërëm ma ngi koy sant wax leen ni wax ji li ko indi mooy réunion bi ñu defoon ci kees réunion boobu kuréelu association des maire du Sénégal maire du Sénégal yépp 557 communes yi am nañu maire maire yooyu ñoo doon daje maire yooyu am président président bi monsieur Omar Ba am ay vice président région bu nekk am ci benn vice président yàlla def ñun ci région de Thiès ñooy vice président ci waxtaan bi bi ñu génnee benn journaliste laaj ma mu ni ma Fandène dafa ëmb Thiès ba Thiès mënul noyyi ma ne ku dégg naa la loolu lu ñu mën a waxtaaneel il faut que waa population Fandène mën cee waxtaan la ma wax mi ngi encore ci réseau yi dañu ciy waxtaan responsable yi nga xam ni aussi ñu ngi ci dëkk yi dañu ci waxtaan conseil municipal dina ci waxtaan ci kanam mën nañu leen sirnde nan la ñuy defee décret boobu nga xam ni bu fekkente ni yokk am na wàññi ci benn yokk ci beneen ma ni ko loolu dañu koy waxtaanee bu ñu ko waxtaanee ba pare su autorité wu ki nga xam ni mooy représenté état bi mooy le sous loolu bu amee damay wax nan lañu koy defee waxuma ni dinañ ko def parce que fi mu nii amagul benn kayit bu jogee ci commune u ñëw ci ñun mais loolu day wax day waxaale pour commune yëpp parce que wax boobu ñu koy waxtaane ay at ci gannaaw pour fexe ba nan la ñuy organiser donc euh, euh, commune yi donc la ma ci wax mooy loolu mu ni dañu koy waxtaane waxu mësuma wax ni dañu koy wàññi wala dañu koy yokk mais man yi dañu koy waxtaane te waxtaan boobu bu sottee kan la ñu koy jébal président de la république moom rek moo am sañ-sañ def décret te président de la république bi fi nekk léegi Bassirou Diomaye Diakhar fay la tudd donc bu fekkente ni décret boobu am na kooku moo ko war a signé loolu yaakaar naa leer na dama yokk ci ni maire bi ma doon day exécuter décision conseil municipal conseil yi ñu ngi fi maire bi ñemewul def loo xam ni conseil municipal décidé wu ko maire condom mënul def dara conseil municipal bi mooy délibéré voté maire doog am sañ-sañ boobu ba léegi àggaguñu foofu donc pour kaw Fandène bi conseil municipal bi jotagul benn kayit boo xam ni ñooñu dañuy ñaan donc commune Fandène ñaanul te waxul ni day joxe donc comme dama ni Fandène commune Fandène jotagul ba léegi donc wax jooju àgg gu àgg gu fa léegi agence nationale de l' aménagement territoire moom la wax ANAT ANAT ci at yi passé ba tey ñi ngi waxtaan ci nan la ñuy organiser territoire nan la ñuy organiser territoire bi ñu ngi ci loolu dinañ ci àgg parce que ala kulli ali wax ji dina ñëw bu boobaa ñu bare dinañu comprendre fan laa doon waxee parce que yàlla dafa defoon ñu nekkoon ci euh, peggu président am na lu bare loo xam ni dañu koy gis di ko dégg am na benn loi boo xam ni mooy loi 2013 10 du 23 décembre 2013 mooy wax li nga xam ni mooy wundu euh, donc euh, décret yooyu maanaam bu fekkente ni dañu war a changer tour commune bi wala modifier euh, donc territoire yi wala désigner un nouveau chef lieu loolu décret président rek moo ko mën def donc loolu maire mënu cee am benn sañ-sañ donc yàlla def ci kees gii ak Fandène 1973 1978 ñaari yoon am na ay village yu bokk ci fanden yu ñu dugal ci kees yaakaar naa ñun ñëpp xam nañu dëkk yoo xam ni dañu ko dugal ci kees te dugal boobu yaakaar naa sa li ma wax sànq ci lay jaar dina am ay waxtaan ensuite dugal bii nii nii amoon na ay waxtaan conseil municipal bi signé na ci donc àgguñu donc ci loolu fi mu ne donc bëgg leen wax ni euh, man ak ñi ma àndal ci conseil municipal bi intérêt population Fandène amul dara ci àddina luy tax ñu yàq intérêt commune Fandène amul attanuñu jël li nga xam ni Fandène moo ko moom si suñu coobare ñu joxe ko xel xalaatu ko mënuñu ko te xel xalaatu ko donc na leen wér ni loolu mënta nekk loolu moo tax xanaa bu fekkente ni yow dangay ngay maye doo laajte neuf hectares et demi te ñun ñoo taxaw déglu ngeen ko keroog waa Fandène ñoo taxaw di laajte 9 hectares yi nga xam ni dañu ko dugaloon ci mbuurkat pour ñu delloo ñu ko donc yaakaar naa ku def loolu amul lu muy bàyyi kuy bàyyi kuy jë bëgg a nangu ay hectares yoo xam ni dañ ko ko bëgg a jël kooku yaakaar naa euh, du maye euh, luy village walla leneen donc wax leen ni amul amul amul daara daara amul benn village. bu ñu ciblé ñun gëm naa ni passé nañu loolu parce que mënoo yàlla may la 2012 ba 2019 grâce à yéen parce que yéen a ci jàpp ba président Macky Sall woolu ma teg ma forces armées juróom-ñaari at ngeen may ma mairie ñaar ñaari yoon may am ay calcul ci mbirum mairie yaakaar naa ku ma xam war na xam ni passé naa foofu. mënu mënu mënu ta nekk sama xalaat loolu nag def maa may ma nettali leen lu ma sama papa waxoon dem ci yàlla dañoo dem école ma nekkoon premier ñu ngi seppe ci composition bi ci topp ma ñëw di nuyu samay xarit ñu banque seen loxo ma ñibbi kër ga di jooy sama papa ni ma lay jooy ma ni damay nuyu sama xarit ñu bañ a ñu tënk téye seen loxo bañ maa nuyu mu ni ma ndegeem yaa ngi nekk premier lii di ko gis tànk yaa ngi dund di ko gis maa ngi leen di gërëm di leen sant. amuñu dara lu ñu regretté ci nekk ci wetam ndax. Sénégal yëpp mën nañ ko témoignel fidélité ñëpp mën nañ ko témoignel ci Sénégal ne ku ko xam ci dëgg nga ko xam lu mu la wax lu ne loolu lay def doo gis mu def safaan ko kon yaakaar naa ne kooku su amee ñeneen nit ñuy wax ci ñu moom dañuy bàyyi nit ñi ñu def seen jugement wu bopp ndax moom lañ ko xamee loon démb moom lañ ko xamee tey ci njub ak ci jubal ak ci jubanti kon yaakaar naa ne ñuy woote loolu ñu ne dañ cee teg monsieur le maire Augustin Tine may wax rek ne li mu ci waroon wax yëpp wax na ci waaye liñ ci yokk du bari dañuy wax rek ne ni nga xamante ne tey jii yëkkati nañuy kàddu wax ne dañoo bëgg a tayle yaakaar naa kilifa bi tontu na ci tontu bi mooy senegal ay loi ak règlement ñoo ko tënk tey jii li may wax rek mooy wax na ko ci xam sànq ne amul benn commune wala ab dëkk bu nekk ci commune bu ab maire mën a génne ci commune boobu ñu di ko toftalaat ci beneen commune benn maire mënul lool ndax comme ni nga ko waxee sànq ci loi 2013 bi nga xamante ne moo tënk charte bi nga xamante ne moom la ñuy doxalee collectivité territoriale yi tënk na ko ci article 75 bu leer nañ te ne kenn mënul jël ay dëkk génne leen ci sa commune di ko dugal ci beneen commune te fekkul ne waa commune ba ñoom ñoo ko waxtaane ci seen biir waxtaan ci ak seen conseil municipal waxtaan ci ak seen représentant de l'État te bu dee ci suñu cas bi mooy le sous-préfet de l'arrondissement de Kër Moussa te comme monsieur maire ni mu ko waxee sànq jotaguñu am courrier bu nga xamante ne war nañoo may ñu waxtaan ci lu mel noonu conseil municipal bu Fandène depuis 2014 ba léegi ñu ngi délibéré doo gis ci benn délibération bu nga xamante ne bind nañ ca ne commune u dafa war a joxe ay dëkk wala dafa war a ubbeeku nest pour yeneen dëkk euh, ñu mën a séddee suñu dëkk yi yóbbu dugal ko ci biir commune Thiès. mais comme ni mu ko waxee nag ci biir kàddu gi bu amee kenn kese moo mën a jël ndogal li muy son excellence le président de la république muy Bassirou Diomaye Faye Diakhar Faye moo tax ma ne ñi nga xamante ni ñu ngi wax ñun de dañ leen di jël tey jii au témoin jël publique national comme international au témoin bés bu ñu dugalee benn dëkk rek ci biir commune Fandène ci biir Thiès su boobaa danañ ko imputer responsabilité wu nguur gi nga xamante ne moo fi nekk te ci seen bopp ki nga xamante ne mooy kilifa gi muy le président Bassirou Diomaye Faye nekk ci bopp ba bu amee dañu jàpp ne moom la kon wax ji na leer suba bu ñu wax mukk ne mairie Fandène wala commune Fandène wala mair ba moo d'accord ci ñu jël dëkk dugal ko biir commune Thiès ndax amul sañ-sañ bi président de république moo am sañ-sañ bi kon boo amee nag kon nañ xam ne moom la mu leer nañ leneen lu ma bëgg a wax mooy dama lii ci benn bataaxal ci benn waay bu nga xamante ne daf ne ki gi dafa dañ dafa dafa manqué de vision moo tax mu bëgg a jël ay dëkk dugal biir commune nu Thiès manque de vision nag manque moom loolu ñaari baat la mooy manque di baatu tubaab nasaraan ak vision tamit di baatu nasaraan bu ñu ko doon tënk dañ naan vision mooy gis-gis mooy ab jëmukaay bu dee manque tamit ñu jàpp ne mooy lu nga xamante ne matul ci seen biir wax dañu ne waxtaanaguñ ci kilifa gi ci déclaration mu wax ne waxtaanaguñ ci loolu te ñoom ñu ne vision bi mooy waxtaan bi mooy li ñu tënk ci waxtaan bi loolu mooy vision bi waaw ginnaaw nag li ñu tënk ci waxtaan bi mooy vision bi te waxtaan bi amagul kon kay vision amagul ci loolu ba manque di ci am yaa xëy kon moo tax ñu bëgg leeral loolu ñuy wax manque de vision dañoo jum ndax vision amagul ci loolu parce que kenn waxtaanaguñ ci ba jël ci décision moo tax nag ñuy wax ne dañuy ñaan nit ñi ñu dellu si seen xel kilifa yi nekk ci dëkk yi danañu gis ñu ñëw ci dëkk yi di wax ak ñoom wante jàpp naa si sama wax sànq ni ma ko waxee waxu monsieur le maire Augustin Tine yaakaar naa duñ ko jëndee ak waxi ñeneen ñu nga xamante ne dañ fay nekkoon te liñ fi def lépp je crois que umpul waa Sénégal. kon mënuñu weccoo ñaari wax yooyu mënuñu leen méngale mënul nekk c'est pas possible moo tax nag ñuy wax nit yi lañu jël seeni responsabilité xam ne bu leen kenn fowe bu kenn fowe seen xel dama ne Sénégal. li fi xew barki dem moo njaay ñun ñëpp xam nañ ko ñiy falu ci nguur gi wax nañu ba falu ci nguur gi wante tey yaakaar naa ne fi ñu war a jëm nag mooy la waxoon sartoo koog nit ñi ñu leen cee xaar ci loolu lañ leen di xaar tey mais xaaruñu leen ci beneen discours bu nga xamante ne daf ñuy distraire dañoo waxoon ne bu ñu ñëwee lii nekk coow li tey jii li assemblée nationale ñu ne dañoo war a waxtaan ci dañoo war a tas conseil économique social environnemental ak HCTN ma ni booy commencé bale da ngay commencé bale ci sa biir kër ku waxoon ne foofu politique dafa araam wax ne caisse noire bu mu fi toogee dootul amati yaakaar naa ñun foofu lañ leen di wax nañu commencé ci biir kër gi nañ commencé pare ba ak primature ba pare pare foofu ba pare soo ñëw assemblée nationale wax ji foofu la nekk sénégalais yi dañoo sonn tey sonn lañu def ñépp xam nañ loolu waaye waaye nañu ñëw ci indi ay fajtal ci coono sénégalais yi ak li ñu promettoon sénégalais yi ne dañ ko def ñu defal leen ko maa ngi leen di sant leen gërëm